mooy wootee point de presse ma bëggoon leeral wax ji lii du conférence de presse ci gàttal du am question du am réponse point de presse bi nag mooy ñëw waxtaan ak askanu Dakar parce que lu jot a xew tey loolu daanaka dafa dépassé yebel ak maa tey kenn xamatul lan la dëkk bi daal ci gàttal dafa am benn waay bu fi nekk ñu koy woowee Macky moom lu mun nam ma mooy troisième mandat ñun lu ñu nam ma mooy lu ñu yoon may ci ay sañ-sañ ba mën a jëlee lu fi nekk moom nag nee na moom lu ko neex lay def parce que moom mooy yoon foofu nag la naxee boppam moom ci boppam ci élection locale yii bañ ko duma ba duma ko ba xamatul fan lay fan lay jaar mu taxaw ne que moom ala kulia sax loolu moom nekkul métti ci moom parce que moom musul gagné Dakar moom moo ko wax ñëpp dégg ko génn ñëm suñu nopp wante ba tey waxul askanu Dakar lan la def ba gagné soi-disant élection député yi fi amoon ci 2017. mooy bu mu fokkatee juróom-ñaari siège yu député yi. te loolu bu mu koy def mu ngi koy def ci ñetti waxtu ci guddi daal di jiital lii di ordre de mission. bii yoon nag mu xam ne ni ordre de mission du jàll. mu xam ne ni que effectivement parenage bi dina jafe lool pour mën a invalider liste Yewwi Askan Wi ndax parrainage parce que luñ ko dóor fii ci élection locale yi. lu ci des pour mu mat cent mille voix wax dëgg yàlla bëritul te luñ ko dóor fii bi Dakar munul daw ba dappi ko kon nag lu mu def mooy nee na comme dafa sës nee day jaay doole ataan ak yabel wax ji mooy lan mooy coalition wu Askan Wi dafa am benn mandataire mandataire bi mi ngi tudd Déthié Fall Déthié Fall ci boppam nee na liste bu bu ñu fësal nee na moom déposé wul liste boobu nee na moom lu mu déposé ak lu waa direction générale des élections génnee bokkut ñoom nag ñoo jël suñu list ñu falsifier suñu liste daal di dindi ay yenn tur def lu leen neex parce que amoon nañ ñu ci namoon wante loolu yëpp amul benn problème parce que ñoom bu ñu ko defee ba ñu gis ñaawteef ba ñu def ba ñu dem gëstu di di code électoral mooy loi bi loi bi nag lu mu wax ci article 179 ci gàttal nee na suñu déposé lépp ba lépp jeex nee na 66 jours balaa jouru élection yi mooy daanaka dimanche dernier nee na à partir de 66 jours yooyu mooy dimanche dernier yoon may na direction générale des élections juróomi fan donc daanaka ci gàttal tey ñu ngi mercredi donc dese na leen encore yeneen ñaari fan pour ñoom ñu mën a bind suñu mandataire wax suñu mandataire que dafa am ci liste bi ay ay élément wala ay ñit yu mën a invalider bi kon am nañ ko ba ajuma wante ñun ba ñu gisee ñaawteef ba ñu def ñu ne ñun duñ leen may ba ajuma lu ñu may lu ñu yoon may ci sañ-sañ te ñëpp gis nañ ko démb ñëpp dégg lañ ko démb démb suñu rakk suñu doomu ndey suñu xarit monsieur le maire Pape Madiop Diop ci coobareem boppam taxaw na nee na moom day désister loolu yoon moo ko may am na droit ne man bëgguma bokk nepp ko gis ñëpp ko dégg waaw maintenant ñun ñu xam lan la gars yi nam ma ci ñaaw ñaawteef bu ñu def ci suñu liste ñu woo ñaari ñett ne leen gars yi lii la gars yi nam ma ci ñun te ñun ñu ngi leen di waajee dumma ci dëkk bi ba dëkk bi am cohabitation donc ñu ngi sàkku ci yéen comme ñoom dañu daal di falsifier suñu liste lu ñu déposé woon nañu dellu siwaat ci loolu yéen ngeen bind seen liste seen seen lettre de ñu remplacer leen te yoon nee na suñu toogoon ba àjjuma DGE notifié suñu mandataire wax ko liste mooy manquement bi wala lii mooy irrégularité irrégularité yoon nee na suñu mandataire à partir de yoon nee na ñetti fan pour mën a yoon nee na rectification yooyu mooy mooy remplacement de candidat inéligible mooy ay candidat yu am ay casier judiciaire euh, yu am ay condamnation wala te nee na loolu day am sans préjudice de l'ordre d'investiture wala mu ne substitution de pièces périmées daanaka sa carte d'identité périmée à partir de ajuma joxaat nañ la ñetti fan pour nga changer nit ñëw parce que seen pièce d'identité dafa périmée wala ñu ne mu ay dossier yu comporté ay erreur matérielle erreur matérielle ñoom ci lu ñu jalgati ak ñaawteef bu ñu def loolu la ñuy considérer être erreur matérielle mooy daanaka dañu bëgg a gëmloo askar wi ne ni que ñu ñii respecté wuñu parité mais dama ne loolu sax su amoon yoon lu mu wax article cent soixante-dix-neuf leer na tey nag ba ñu demee direction générale des élections ñu ne dañuy dem a rectifier bi ñoom ñu ne duñ ci duñ ci ànd ñu daal di woo ñaari huissier de justice huissier de justice dañu nekk ay agent assermenté ñooñu seen liggéey mooy lan mooy fi amoon peut-être am nañu ci gis seen bopp policiers yi ay doomu ndey lañu ñu ngeen di jëggalu wante Macky Sall moom la ñuy waxal dama ne moom bu mu demee ba jéem a xool lan lay def ba seeyal mairie de Dakar amu ci ndam mu dem ba xool lan lay def ba tabb maire de Dakar par décret présidentiel amu ci ndam mu jël maire de Dakar tëj ko ci kaso bi jaay ko doole fokk ci mairie de Dakar ci loxoom 2017 yéen ñëpp gis ngeen lu mu def ak juróom-ñaari siège yu député yi ak ordre de mission yi bii yoon nag mu taxaw moom xam na mu ngi may gis mu ngi may setaan mu ngi may dégg xam na bu baax a baax baax que cohabitation day am moom xam na ko waaw xam na ko mu ne comme mbir bi ni la tëddee naa leen jaay doole doole boobu ba nga ba ñu bëgg a jaay nag du jàll mu dem ba ci biir nag naa leen jaay maa tey maa tey maa tey kay faj dama ne président Macky Sall su ma baat ci kaw Dakar problème bu Dakar tuddul Abdoulaye Diouf Sarr du moom ak ñun problème bu Dakar tuddul Amadou Ba du moom ak ñun problème bu Dakar tuddul Alioune Ndoye du moom ak ñun problème bu Dakar mooy Macky te dañ ko fas yéene lijjanti comme moom nee dakaar Dakar jàmm du fi am moom tamit na xam ne ne jàmm tamit du ko am parce que lii kenn du ko nangu moo tax may sàkku ci askanu Dakar nañu taxaw tem may sàkku ci ndawu dakaar yi nañu taxaw tem duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moom nag moo xam lan la ko mbir bi jaral comme moom nee na ala kulli àll yeewi askan département de Dakar naru ñu bokk moom na xam lan la ko mbir bi jaral ñun tamit xam nañ lan la ñu mbir bi jaral kon nag ñu ngi biralaat suñu